ñun yéen ban yitte lañ am ci ñëw bi ñu ñëw Porokhane ak ñan lañ ko seqal d'abord dañ ko seqal waa poste de santé Xayra bi ba pare mais di ko di ci di di ci dugal tamit waa district bi district Touba lépp loo xamante ni poste bi ci lay da koy def rek moom lañ ci àndal di ci ànd aussi ak hôpital Matlaboul Fawzeyni parce que moyen logistique bu ñu am rek muy muy ñoom ñoo ñu koy jox chaque année. ci ndigalu soxna maam Issa Mbacke kon moo mooy personne morale bi nga xamante ne moom mooy dox loolu durant pour Porokhane bi ba pour Porokhane bi jàlle di ñu remercier bu baax directeur hôpital Matlaboul ni mi nga xamante ni moom a chaque année moo ñu jox moyen logistique ñu man di déplacer euh, Porokhane ba fii soxna maam Issa aussi daf ñuy appuyer ci lu bëri wante poste de santé xayra ak équipe médicale bii nii teew dañoo doon ñoo xam ne dañoo dañuy génne seen seen seen mën-mën ak seen am-am dajale ko ci yéen jënd garab yi yëpp bu ko defee ñu jël ko lépp jébbal ko soxna si mën na ànd ak moom ñëw couvrir ko bis bi. ndax aussi bis bi bisu sàkku ñaan la bisu yeeslu la bis la boo xamante ni tamit euh, ku ci nekk bëgg nga cee def. ndax boo rombee oto yi ñu ñuy def ak ñi leen di kare yi leen jox bernde yi nga war a xam ne bis bi képp ku si def perte ko perte loo ko donc ambition boobu lañ amoon depuis booy xool 2007 2008 ba 2009 ñu daan ko ànd ak euh, sunu euh, ICP bu njëkk Mamadou Bassila muy continuer ba ci Fallou Diom ba agsi ci Abdourahmane Seck mais dara mosul changé chaque année sunu jëwriñ abo dina jiitu ñu topp ci ginnaawam mu teg ñu ci yoon ñu collaboré ak Mame Issa Mbacké mu collaboré ak district bi collaboré ak hôpital Matlaboul Fawzeyni ba ñu mën agsi fii ci jàmm mën a ñibbaat ci jàmm. présentement nii ñu ngi ci cent quatre-vingt-quinze patients pour journée tey te garab yi waaw te garab yi aussi wax fa dëgg yàlla ñi ngi joxe mais ba léegi jeexagul te aussi faj bi tamit jeexagul toujours ñu nous sommes à l'attente des patients yi nga xam ne euh, ñu ngi ñëw te ñu ngi continuer di leen di leen seet. di leen jox garab yi nga xamante ne nii moom lañ fi yor lépp loo xamante ne nag da leen lii pathologie la boo xamante ne lii moom euh, du du wàllu fii dana la jox oriente la nga dem boo ñibbee nga dem hôpital bi la gën a jege nga dem foofu nga àggale. léegi équipe médicale bi moom mi ngi composé ay infirmiers ñoo ko composé am na infirmiers am na ASC am na aussi ay pharmaciens am na ay dépositaires am na daal. de une équipe boo xamante ne c'est équipe dynamique bi nga xamante ni kenn ku ci nekk wàll wala jox franchement yaa ngi cay def waar walla ca war. ak kenn koo xam ne dafa bokkoon ci ñun musul tardé euh, màggal gi tey nag yàlla dafa dafa weddi muy sunu beneen euh, jëwriñ muy sàmba Faye ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ah te yeexañu waaye musul tarde màggal gi te aussi jàmbaar la ci woon lool daana ci def ñaxam daana ci def dooleem. daanañ ñëw franchement ñu ànd moom couvrir màggal gi mais nag euh, yàlla moom moo ko bëggee nii ba daaw jéeg dañ ñëw nag daaw ren la ñëwul dafa tawatoon daaw ren suñu borom def li ñu koy ñaanal yàlla mu xare ko àjjana comme ne daxal ko fi mu jógee yàlla na fi yàgg te wér soxna maam Isa ñoo ngi koy sant di ko gërëm ndaxte liggéey soxna jaara bi buñ ci duggee moom la macha allah ñu koy sant di ko gërëm na yàlla wéral ay cëram fekk aw fanam ndax liggéey soxna jaara bi moo ñu ci duggal bëgg màggal gi ak soxna maam Isa ci liggéey bi fii ci kër gi. soxna maam Isa xanaa ñu koy ñaanal rek màggal gi moom macha allah fu ñu bëgg a àgg ñu àgg fa kër gi yàlla nañ dund ak jàmm. ba di ko tëj ak di ko tijji ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci barke Soxna Jaara ak sëñ Saaliw sama sëriñ sëñ Saaliw rek laa gëm waaw màggal gi neex na macha allah yi mat na lépp doy na macha allah maa ngi sant sëñ Saaliw sama sëriñ sëñ Saaliw rek laa gëm man na Dem laa tudd Soxna Dem bàyyi ko Touba Ndiané ah, présidente daayira euh, nga ci ah, waaw. lu ngeen gisee màggal gi ak kër soxna maam Isa yi ngeen xam ne chaque année ngeen di dal. neex rek màggal gi moom neex na moom tubaarkàlla noo ngi ñaan rek maam Isa Mbàkke yàgg fi lool te wér ak mboolu mu jullit ak maam Marema Cuun mi nga xam ne moo nu jiite mu yàgg fi lool te wér liggéey bi rek ka ñor bu ñuy ñëw dañuy dañuy dikk ci wata bi defal mu lépp lu mu nu war defal ci tiraanga jox na nun naan nu sunu wata léemul nu dem ak jàmm ñëw ak jàmm. fekk maam isa mu defal na suñuy teraanga dara manqué bi man message ngay bàyyee nit ñi nga xam ne wax dëgg yàlla soxna si nga xam ne tey mooy borom màggal gi maam jaara di royukaay yéen jigéen ñi ban yóbbal ngay jox jeeg ju ndaw ji pour ñu mën koo yóbbu nag xanaa ma jox jeeg ju ndaw ji rek ñu roy soxna maam jaara hmm. nu yàgg fees su yaara si ndik yàlla may nu wér guñ ko mën a liggéeyale te jeeg bu ndaw bu binduwut ci daayira bi nga bindu fas